sang ba ne woon Cheikh Ibrahima moom rek a gis sëñ Touba moo gis sëñ Bamba moo tax nag moom pas-pasam ak ak gëmam tax eh, turu Cheikh Ibrahima Fall juróom-ñaari yoon la ko daan wax tafli ko ci boroom bët yuy metti moom muy faj ay bët da ciy faj ay bët moom sëñ sëñ Mor Mbaye Cissé. mbokki yi nga xam ne yéen a bàyyi xel ci seen télévision Lamp ci seen jotaay am solo bii di jës bu ñu ciy waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi leen nuyu bu baax a baax. Eh, di len ziar bu baax tay jita ci nuyoo ak ziar yep sunu yakar cheikh mouhamadul muntaxa di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te dolli ko ba ay naalam lepp mu yeggale ko ba sumb leneen dañ fekk lepp waye ñaanal ko baax serigne cheikh jëm mi nga xamne moy sunu buntu ci maam cheikh ibrahima fall di ñaan sunu borom mu ko fa yàggal bu baax te dolli ko ba ay naalam lepp mu yeggale ko ba sumb leneen di ko ñaanal mbollem jabatu serigne touba gi ak mbollem cheikh serigne touba yep ay di ñaanal baax mbollem jabatu maam cheikh ibrahima fall gi yep ak mbollem cheikh yep Eh, di ziar bu baax baax baax señ Abdou Lahad Cissé mom sëriñ moom bay Cissé di ñaan suñu borom mu dolli ko fa yagal bu baax baax te dolli ko wér ñaanal bu baax sëriñ Bassirou Cissé suñu borom yok ay léram ta tassu ci barkem di ziar bu baax suñu bay eh, sëriñ bay ngiran mi nga xamné kenn la ci nun mom señ Aline Badara mu bàyyi nu xel lol am fa mu ñu tek ñu bok ci njabootam ndeysaan fan yi rek yenn ko fa laa fekk sëñ Mor ñii ñu taxawoo taxawaay bu am solo ñii ñenn ñoo xamante ne bii ku leen xam-xam ne seen dund yëpp dañ ko jox sëriñ Touba Cheikhul Khadim waaye seen dund yëpp dañ koy liggéeyal sëriñ Mor Mbaye Cissé waaye def nag seen royukaay ak seen bunt muy maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina di borom te xam naa loolu ci biir waxtaan dina gën a leer incha allah te loolu nag ka ko nampatal ci ñoom mhm. mooy sëñ Mor Mbaye Cissé nga xam ne eh, ku bëggoon Cheikh la amu ci woon sago loolu mhm. sëñ Mor ñàkkul lum ci waajal bu baax a baax a baax a baax di ziar mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ñuy topp nag di jégalu ci waxtu wi xam naa ne mel na ne xaw na noo yeex a tàmbali waaye nag ni ñu koy waxee saa su nekk rek ki ñuy waxtaanee mbiram moo yombul e muy jotaay bi di Cheikh Ibra tey nag ñu indi jàmbaar ji ñu fas yéene ko waxtaane nga xam ne moom e leneen maam am na lu doon ci yoon wi loo xam ne sëñ Mor dina ci dikk li wax ko am gën tëraan yi e sëñ Mor si Cissé góor yàlla la goo xamante ne bii biñ léegi rek bi ñu jàllalee dara mbind wane ne moom lañ war a waxtaane tey Eh, maanaam lu ne jot nañ ko ci ay message ngir yàkkamti woon eh, eh, sëñ Mor Mbaye si ñu waxtaanee ko ci biir jotaayu maam Cheikh ndax xam nañ sëñ Mor ni mu tolloon fi Cheikh Ibrahima xam nañu cër bi mu joxoon maam Cheikh Ibrahima waaye li gën a yëm sëñ Aliou Badara mooy njabootu Cheikh Ibrahima gi jaar ci loxoom loolu du ñàkk dinañ ci dikk incha allah incha allah sëñ Mamadou Ndaw <laughs> waaw waaw daa amul sago ci euh, mag ñu baax ñooñu moom mag ñee koy dundal. moo tax euh, faaw rek mënu woon ñàkk nii rek lay demee. Ah, di si siyaaxaan bu baax a baax te di si bëgg. ni nga ko waxee euh, am mbégte lool ànd ak jotaay bi. Mm-hmm. Serigne moor mu baax mii. Mm-hmm. Serigne Mor Ngiraan ñu duppee ko sànq bu tedd ba Serigne Mor Mbaye Cissé. Mm-hmm. di ñaan suñu borom dolli gërëmam. Serigne Mor Ngiraan si xam-xam bu rafet bi te yaatu. yaakaar naa ni biti réew xam nañ ko bu wëre wëre wërëwërëwër. Euh, maa ngi wax naan euh, li ñu gën a marqué si moom am na at bu ñu dajee Côte d'Ivoire. Mm. su ma juumul euh, la. dëgg la waaw ci jotaay yu am solo. Mm. ci xam-xam bu rafet macha allah. Mm. ñëpp bëgg si wax dëgg yàlla. noonu ngeen koy defee fépp daanaka si biti réew. kon nag am nañ mbégte tey dalal ndax ñun moom xam-xam rek moo ñuy dundal. si waaw wax dëgg yàlla kon sa teewaay bëgg nañ si lool. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Alioune ngi lay delloo ab nuyoo bu baax nuyoo bu ànd ak cant nuyo bu tedd bu ànd ak siyaar ànd ak ñaan di la jaajëfal bu baax ci kàddu yi di am mbégte bu baax itam ci jataay bii nga xam ne moom lañ bokk teew ak yéen di nuyu sëñ Maodo mii nga xam ne eh, loolu pas-pas boobu nga wax rek la donn moom laa wax léegi muy taalibe gi mm-hmm. ndax ku xam Baye Cheikh Ndaw rek da nga xam murid saalix kon nag su fekkee ne mi ngi dox ci waar woowu du doon duñ du doon njombite du doon ak njo jombi kon noo koy jaajëfal bu baax di ko siyaar eh, di siyaare sëñ Ibrahima Guèye nga xam ne moo yor programme bi siyaare jëwriñ ji nga xam ne moo nekk ci kaw di sëñ Aliou di ko ñaanal moom itam suñu borom gën koo dolli ak wér dolli kàttanam ba liggéey bii nga xam ne eh, mi ngi ko yor te jubluwu ci lu dul jëm ci sëñ Tuubaa ak jëmee ci rek suñ boroom gën koo dëgëral bu baax a baax nuy mbooleem bokk yi nga xam ne ñi ngi ñuy topp ñépp nag jéggulu leen itam ci noonu mu sëñ Mamoun wax na ci wax na ci waxtu bi mm-hmm. am na loo xam ne ku ko bëgg rek du yomb mm-hmm. eh, la nga cey xaar tuuti ndax yàlla nga nga am rafet njort mm-hmm. kon noo ngi lay delluwaat nuyoo bi ak siyaar bi alhamdulilah jërëjëfati kon eh, xanaa fas yéene dugg si jotaay bi waxtaanee kenn ci mag ñi. sëñ mm-hmm. Mamadou ni ñu koy defee. Euh, jaaree ko si jotaay bu tedd bi di jotaay bu maam Cheikh Ibrahima Fall am fa Baabul Mouridina. Mm-hmm. ni nga ko waxee rek jaajëfal bu baax ak dolli ñaanal Serigne alin Thioune mi nga xamante ni léppam da di njaareem. Mm-hmm. waaw te eh, kër Serigne Mor Mbaye Cissé di léppam ak Serigne Ibrahima Gueye mu baax mii nga xëy ni soo xoolee jotaay bi mm-hmm. suñu borom si loxoom la ko dogalee mu jaare si yitte am solo def si yitte lool te rafetal ko mm-hmm. di ñaan suñu borom kattanal ko mm-hmm. mu kattanal ñu bu wër a wër daje si Lamp Fall yëpp suñu borom mottali ko si barki mu maam Cheikh Ibrahima Fall di eh, porox ndoolu ngir nag eh, ziar ak jaal Serigne Salihu Fall moom Serigne Salih Mbakke. Mhm. moom Serigne Abdoul Ahad Mbakke. Mhm. moom Cheikhul Khadim mi sunu borom dogal mu bàyyi koo fi tey ñu gën ko miin si Serigne Saliou Njurul. Mhm. ñu ngi koy euh, ziar bu baax a baax di ñaan sunu borom euh, dajale kaag maamam ju tedd sëriñ tubaax Touba la Rasoul. wane la kaag baayam yu tedd ya. Euh, kon nag ñu ngi koy ziar mboolem yoonu murit di ko tàmbalee si Cheikh Mouhamadou Mountakha. mi toog jotaay ak Serigne Touba Khadim Rasoul di koy ziar bu baax Serigne Sidi. Hmm. mi toog jotaay Serigne Abdoul Ahad Mbacké ak mboolem njaboot Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye it di beral ziar Serigne Muxtada Mbacké mi sunu buntu. Hmm. si kër Serigne Abdoul Ahad di ko ziar bu baax a baax Serigne am sum Serigne Abdoul Ahad Mbacké ak mbooleem njaboot gi ñu ngi leen koy ziar bu baax a baax. Hmm. xam naa kon jotaay bi niñ koy tàmbalee rek euh, sëñ Mor boo leen ñu ko mayee. mooy jaar si buntu ba. Serigne Abdoul Ahad. Sisi, mi nga xamante ni jota toog jotaay Serigne Mor Mbaye Cissé mm. mu ubbil ñu jotaay bi si ay kàddoom mm. mbokk yi ñu mën nek nekk sóobu si waxtaanu tedd bi waaw mm. ah, fas yéene di ko topp ko waaw ah, ndax ñoo bëgg waxtaane ay te liggéey liggéey du fay génération yi waaw ndax ñoom li ñu doon def mooy li mën a jëriñ doomu aadama ak luy musal doomu aadama ak luy dimbali doomu aadama ak li tax ñu mën a jëriñu bañ a loru kon loolu moom ah lu am am solo la waaw ndax ñu taxaw bëgg leen waxtaanee seen liggéey moom umpul kenn moom Seex Ibra ku ne bu liggéeyam yoonu Sëñ Tuubaa waaw ku xam na ko bu baax a baax ndax moom wane sëriñ bi war maal ko màggal ko yëkkati ko wan nu yoon wi nga xam ne mooy wi nga xam ne moo gën a gaaw ci mën a jëriñ ci sëñ bi ci li mu yor waaw ci ne ko sëñ bi doon bi mu koy bi liggéey liggéey bi dem noonu la defoon yonent bi def ko yàlla waaw teg leen ci kanamam yëmaliwu leen ak lenn ban jox ko cër bi ñu ko jox waaw moom itam bu ñëwee itam xam ne sëñ Tuubaa li mu yor cër la boobu nii rek lañ ci mën a jëriñoo waaw joxe sa lépp te yàlla tax sëriñ Mor de wala xaqal xaqal la woon waaw kenn wérante wu ko taalibu sëñ doon koo xam ne itam masalan ci saaxee taxawaayu yonent la taxawoon maanaam dafa mel ne ne ku ñëwee woon ci doomu aadama yi ndax dadaa boole doomu aadama yi leen laa biri leen dimbali yemutoon ci mission rek ne morit gi rek maanaam dafa ñëwoon comme taxaw taxaw yonent masalan waaw boo xam ne day mel ne borom lu ko yónni ci doomu aadama yëpp ñun mën a fexe bu mën a jëriñu bañ a loro ah ci mën a wax tam sëñ Mor tam kenn umpaliwu ko ku ne xam na ne aw sosam ci yoonu murit moo doon jàng ak jàngale daara moom la doon ci la fekk waajuram sëñ Ibrahima Cissé waaw xam muy ñëw ci sëriñ bi tam ci loolu la ne woon bi mu ñëw ci sëñ bi tam ah, sëriñ bi bàyyi ko loolu xamal ne ko kat mënoo defaat leneen lu gën lii. ndax ñun ñëpp kat lii ci la newoon suñu waajur ci la newoon te mooy li yàlla gën a digle mooy liggéey bi gën a am solo ci kaw suuf waaw sëñ Mor ma ne ca loolee ci liggéey waajuroom woowee mu ko bàyyeeloon mooy di jàng ak jàngale fi sabilillah mosu jeete kenn leen yàlla mayoon ko tim ijaaba soxla su nit am tim te nga yaakaar ko ci du woo kenn boo ñëwee tim mu ñaanal la yàlla fajal la ko te doo laaj dara waaw doon koo xam ne wax dëgg yàlla nit yi àdduna yi itam ñi jamonoon te ñëpp itam yaakaar nañ ko daa ko ñaanloo waaw nit yi chrétien yeeg Senghor mi itam wax dëgg yàlla defal na ko lu ne bokkoon nag ci ñi nga xam ne Sëñ Mor leen defoon référence këm leen bu amee njàqare ko ci lu mu bëgg bëgg mu jàppale ko ci mu dëgg def ngir yàlla xam ne moom itam kenn ku ne daam lu yàlla yónni loo war a doxal ci jaam kii yàlla réew mi la ko dénk kii tim mbindeef fitim bokku na ci ñi wara ñi leen wara taxaw waaw ci lépp nag ci def ci ñoom xam-xam ak yar ak dimbali leen man mën a àgg seen borom bañ a loru yàlla na yàlla defal jàmm bàyyi fi suñ kilifa yi ndax seen taxawaay daal rafet na leen seen waajur yi bàyyee woon ñi ngi ci mooy ahlu tarixa yi yëpp li ne ci Sénégal waaw tarixa yëpp ñu ngi ci kenn ku ne ndoonoon la nga doon yaa ngi ci yaa ngi ci jàng jàngale ak yar ak di liggéey ak di dimbali doomu aadama yi waaw kon nag ñi ñii yàlla na yàlla taas seen barke rek ñun daal ñi ngi fi fas yéene ñun tam ñoo téeb liggéeyee moom Serigne Mor waaw ñoo ko téye ñoo ko yore daara ji ñoo ko yore fii nga nuy wax ci keesam nga nu fekk néegam waaw di ñaan yàlla barkeel nu dimbalee na mu ko dimbalee woon rek ba li mu yéene woon moom itam ñu mën koo àggale rek li mu yéene woon ci Serigne Touba ak li mu yéene woon ci mbindeef yi ñu mën koo àggale rek ak ci jullit ñi jërëjëf jërëjëf eh, Dame Thioune si wàllu eh, régie bi ànd ak eh, Saasi mbokk yi ki ñu doon topp noonu ni ko waxee sànq mooy Serigne Abdoul Ahad Cissé doon kon Teolfi fii di xalifab Serigne Mor Mbaye Cissé di ñaan suñu borom na ko fi yàggal lool te mu ak Mor waxtaan wi nag la ñuy tàbbi gannaaw bi ñu ko sëñ bi ubbilee di jàmbaar ji ñu wax ni Serigne Mor Mbaye Cissé te kenn mënu kaa waaye juróom bu tedd ba nga xam ci mag ña la bokk di euh, Serigne Ndiaye Sy Cissé luñ ci mën a andi. waaw jërëjëf sëñ Aliou xanaa dañuy ubbee rek sant yàlla bu baax julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant sëriñ Touba Xaadimu Rasuul bi nga xam ne damay wax ne ñaar ñooñu ma tudd muy yàlla ak yonent bi luñ ci am rek luñ am ci ñoom rek sëñ Touba na ko may. sëñ Touba tax ñu am ko. am na mag mu ñuy wax Ahmadou Koumba Touré. dafa mas teew ci sëñ ci majaasi bii la bokk ne sëñ bi yàlla ak yonte bi lu ñu am bu yeboo ñu fab man li nga yor rek ci la bëgg waaye mag ñi nga xam ne nit ñi di ñiy dund sariyan xam nga sëñ Tuubaa day ëpp na géej waaye soo ko doon misaal ci géej da nga naan ay tefes la yu wuute tefes gu ne ak lam nangu waaw am na ci ñoo xam ne xëy na wax jooja dafa diis ci ñoom li may li boo demee ci téere sëñ ma dem indi na ko bu wolof bi ne nee na am ñuy rocc ci mbooloo sëñ bi ne tekk am ñuy rocc ko sëñ bi ne ko yàlla moom nga tudd ak yonte bi de boo leen soxlaaloo nit du la jariñ dara ndax yow ñu la bindee bi la bi yàlla bindee la la booleeg man kon nag ndokk ba fi ñu la boole ba mu la doyee kon nag eh, lu nu am ci yàlla ak yonte bi rek ci sëriñ jëmmi sëñ Tuubaa tax ñu am ko kon noo ngi sant sëriñ bi bu baax ñaanal nag Cheikh Mamadou Mountakha sun borom yàggal ko fi te wéral ko sëñ Tuubaa daa waxoon waajuram wu tedd wa Cheikh mamadou Bachir ne ko mamadou Bachir delul ci minan inna sab'a sinina allati makastuha fi Congo ma daaxat wa sayasharu zalika yawma tubla sarair ne ko ma qada'tu rabbi fi hubudiyatihi walam yaqdani tabaraka wa taala fi rububiya min sidqi wa'dihi wa husni jasaa'i walakin ad-dunya laysat bi daari jasaa'i innama zahnu fi dafa toog Cheikh Amadou Bachir ne ko Mamadou Bachir mu ne ko Mbàkke mu ne ko juróom-ñetti at yu manqué yi ma def Congo def ko Gabon def ko ci àll bi maa daaxat sankuwut du neen ne ko sama juróom-ñetti at yu manqué yi danañ ko feeñal bis bi ñuy feeñal yu nëbbu yi yow ma tubla sarayo ne ko ndax bi may jaamu sama borom dama ko naxut ci njaam gi waruma ko ci sama borom it bi may fay naxuma waruma ci fay gi ne ko waaye adduna du këru pay inna ma jehnu fil axira mbir ma dëgg ëllëg la mooy li sëñ Blaat waxoon ne li ngaan ci ndab li ba tasaaroo ba ku ne mu tasaaroo ci sag wet ba nga ba ku ne bëgg a defee ne liggéey sëñ Tuubaa bi seq koo kenn te doo ci dara ndax fa mu doon ñaani ku neen ami néewu fa ndax te loolu sëñ Tuubaa moo ko bindal boppam wax ko sëñ Blaat duñu ko firi ci wolof waaye waxi sëñ Tuubaa la boo demee ci baax baxaa jigéen bi mm-hmm. muy bi ñuy waay bi nga xam ne moom la sëñ bi tënkee an xat wajat naa maa waaddanaa rabbunaa xaqan mm-hmm. mu tàmbale ci alhamdulilahi alal xamiisi al musyi bi zukuki wa dumusi boo demee ci biir xasida googu da ngay dégg sëñ bi naan daxawtu waadi la daa xaamuusi bil Moustapha wa xurmati naamuusi daxawtu wax di moo tax ba muy ñaan ku naan ami néew fa ko man képp la daa xaamuusi boobu maa ci géej bil Moustapha ci dara ji yontu saa sala wa xurmati naamuusi kon nag ñoo ngi sant sëriñ Tuubaa moomu bu baax a baax a baax ñaanal sëñ Muntaxaa moomu suñ boroom yàggal ko te wéral ko ndokkeel jullit ñëpp nag jullit ñëpp ñu ndokkeel leen ci at mu yees mii nu nekk waaye at mi nag sëñ da cee abaat ndam wanewaat na ci ne du moroom ci loolu ndax koy ubbi ajjuma la mooy sayidul ayaam sëñ moo ci ubbi jumaa ci njëlbeenu at ah. ñuy ubbi tey ñu ne bis bii moo njëkk ci at mi sëriñ bi ubbi ci jumaa jumaa ji ku ko moom ca poroxaan la soxna jaara moo tax ñu def fa jumaa ja kon delloo si waat na mboolim jigéen ñi ma ndokkee laale leen ci jataay bi ndax man amila saalihan min sakarin awun sa wuwa muminun fala nuyiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahu moo ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamalu loolu la suñu borom wax suñu borom kon jëf ju baax xàmmewu ci góor ak jigéen kon nag ñoo ngi ndokkeel jullit ñëpp ndokkeel leen it ci weer wii nu nekk ndax weer wi danaa ci jaar sax ndokkeel waa njarim njarim man mhm. ndokkeel leen ci weer wi ndax muharram nag ci la sëñ Tuubaa sëñ Aliou sëñ Maamun muharram la sëñ Tuubaa dugg njarim ci la ñëw njarim ca la ñëw jours ba mhm. mi ngi génn jolof vingt trois jours ci muharram mhm. la sëñ Tuubaa génne jolof 1912 1912 ñaari fan la dox ci diggante bi agsi guddik euh, talaata guddik talaata mhm. la Serigne Touba njëkk fanaan wala altine la guddi ga waaye guddi ga guddik talaata ba ci gi altine la ñu dem ci guddik talaata ga mhm. ci la Serigne Touba njëkk a fanaan jaareem tolloo woon ñaar fukki fan ak juróom ci muharram mhm. waaye Serigne Touba it ci muharram la génnaat jaareem ba si muy ñaar fukki fan ga kon weeru tam xarit wi ci la sëñ Tuubaa dugg njaarim ci la génn njaarim kon maa ngi ndokkeel waa njaarim tam tam xarit bokk ci ñeenti weer yu ñu wormaal yi inna hiddata zuhuri hindallaahi isna hazara zahran fii kitaabillaahi yow ma xalaqa samawaati wal ard minha arbaxatun xurum weer yi fukk lañu ak ñaar waaye suñu borom da cee tànn ñeent ca jahiliya ba lislaam dikkagut ñeenti weer yooyu nit ñi dañ ciy am wóolu ci seen alal am ko ci seen deret falaa taslimoo fii na anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن لا عمى المتقين كون وير يوي دينغ صح دم نان با يسالونك عن الزهر العرامي قتال فيه قل قتال فيه كبير وزد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل nga gis ne kon weer yooyu naka jekk dañ leen a sëñ Touba ci la am Touba. Ah, weer wii ci la sëriñ Touba jote Touba. Hmm. loolaay lëlub xalifatul xadiim. Hmm. Cheikh Moustapha Mbakkiyu moo mat cer Cerno ci yoon yónni xonnu nduy ca yor-yor moo ko yëgal Cheikh Bamba kookalee góor. Cheikh Bamba ne ko nang ko wax borom saam maa ngi ci xal xalwa maay defar fileeg saam. sëriñ ma Mar Jaara ko tudd xat wa faa tudde ko boppam Bamba ñëw ne Moustapha. Eh. keroog bisab tuddam ba yow ma asuraa la Seex Bamba gis tuuba mu leer waraa Seex Bamba topp leer ga jàll Tuubaa leeram nga jolli na ba xag si booba li lee tax Seex Moustapha moom tuuba leer mbiram juddoo ma feeñal Tuubaa kon muharram ndeke ci la di asuraa waaye mooy bis bi Sëriñ Tuubaa woo woon borom Daarul Muxti ne ko kaay joxal yi ma aw koo xam ne booy dem ak booy dellu si koo fi dajal ñu jéggal te mooy sëñ Abdul Xaadir ndax ci ñetti fan yi la gën a àdduna bi mu dellusee mm. di fukki fan ya keroog bis booba di xaasuraa mooy am tuddam mm-hmm. sëñ Tuubaa nag nee noon nee na woon nag su ma li xaasuraa asiya untura maxsuusatun mm-hmm. rawaha man dara kon noo ngi ndokkeel ñëpp ci weer wi xaasuraa googa rek mënul naa jël waxtaan bu ko defee nag nu ñaanal bu baax sunu kilifa gi ubbi jataay bi di sëñ Abdou Lahad Cissé di xalifab sëñ Mor xalifab sëñ Mor Mbaye Cissé boo xam di jëmm joo xam ne moom sëñ Abdou Lahad yitteem jëpp mooy lëggéeyal waajuram waaye lëggéeyal lislaam sëñ Aliou sëñ mooy koo xam ne doo gis ak bëggam nga naan sëñ Abdou ci lii la ne wala lii la soxla man naa wax ne fukki at yi yépp bu fi bi mu fi duggee Dakar ci seen plateau bii la fi ñëwoon daaw ci bi ñuy waajal bisub sëñ moon Mbaye bi ci la dugg Dakar booba la fi kay fukki at yi tegu fi tànk hmm? moo ne ak fi amul njaboot waaye mën ca liggéey ba ko waajuram sëñ moon rek daf daan wax ne man du ma wax fenn asalaamaaleykum maaleykum salaam rek laay wax hmm? waaw ndax dundu juróom ñeuf kete ak juróom yo xamne waxo fenn assalamu alaykum amna bis bo xamanteni simple euh, sëñ da ñew ñëw ko dajé fak simple dosis daje fa ak alaaji saaxidu ñetti gan yoyu sëñ mor mo leen massa dajali ci kërëm benn bis ku ci ne ba ngay jox sa morom la diko sëñ Mor Mbaye Cissé doy na ci karaamaam mooy kenn du dem kë kenn du toog këram weer te mboolem doomi sëñ Tuubaa yu jigéen ñi nuyu woo leen fa nga siyaare leen ak ñu góor waaw loolu rek doy na karaama ci moom waaw kon noo ngi ñaanal sëñ Blaat suñu borom yàggal ko fi te wéral ko mm-hmm. gën a dëgëral taxawaay bu baax mm-hmm. di ñaanal ki nga xam ne sunu waajur la waaye sunu sëriñ la mm. waajur yi ñu nag yéen ñoo ko bokk sëriñ gi ñu nag yéen ñi fi nekk ñoo ko bokk waaye nag day jëwriñ ca kër ga di jëwriñi sëñ moor ca kër ga muy sëñ bay ngiraan mu sëñ moor mbay seen noo ñaan suñu borom yàggal ko tawér eh, di di di di di di nuyoo bi jaar ci sëñ blaat moomu nag mm. dañu koy def mu baasara ndax loolu la ñu santoon bu ñëwee ci jataay bi mm. dañuy def day nuyoo boobu nee na lépp nañ ko teg ci loxol sëñ si ndax moom léppam sëñ siilim sëñ Abdou Lahad la hmm? léppam ndax ndax moom waajuram da koo féetalee sëñ Abdou Lahad hmm. Hmm. tudde ko ko féetale ko ko sëñ siidi tey di sëñ Abdou Lahad mate ko sëkk kon ñi ngi jël ab nuyoo di ko jëme ci sëñ siidi ak siyaar noonu nga ubbee léegi ak doomi sëriñam ji fi bàyyi ko muy sëñ Saliou ñoo ngi ñaan sa moom dolli ko ay leer dolli ko ngërëm sëriñ Saliou mu sëñ Abdou Lahad naka noonu nag nuyoo boobu ak boobu ak ñaan yi nag dem nag ca say xusuyuux yi muy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñu daal yi sëñ Mor sëñ Mountakha ci ci sëriñ Bachir moo ko jëloon moo ko sëñ musa Abdourahmane loo jox leen sañ Mor Mbaye hmm? tax bi eh, daayira bu tarxiya di amee ay question yu ñu doon laaj sëñ Mountakha yu bari ci dundam ngir bëgg cee bind mu bari mu ne leen danaa leen tontu yépp waaye damaa jotati waaye waxtu wu ma féexee sëriñ Muntaxa mi di sëñ Muntaxa moom sëñ Mamor Pakala mhm. danaa koy wax mboolem tontu yi dana ma koy fàttali lu ma ci wax ma tontu ko sëñ sëñ Muntaxa sëñ Mamor Pakala nee na maa ngi do ci laa xamee ni sëñ Muntaxa sëñ Mor may see ko doon jàngal alxuraan ca la leen ko ca la ko leerale mhm. waaye nag teewut mhm. sëñ Muntaxa bi muy nekk ci sëñ Mor mook sëñ Saaloo sëriñ sëriñ sëñ ba Bachirou jox leen sëñ Mor see ñu nekk ci daara ji di jàng eh, jamono yi rek sëñ Mountakha mu ngi koy fàttali di ko nettali nee na dafa am bis boo xam ne dafa ne ci biir daara ji mhm. sëñ Mor génn ne ne ne kooku mu xam naa day waxtu mu marax mhm. ne mu ne ko mu ne ko man la Mountakha sëñ Mor ne ko ah Mountakha ab denceg ci yow de mhm. waaw yaa ngi ko denc de waaw sëñ Mountakha ci boppam fan yii bi ñuy wax ci coowul daara yi bu yewoo nga laaj ko Serigne Bassirou Dieng mii nekk njaarim jiite rabitatul Quran ba fa nekk mm-hmm. maa ngi ci jataay ba moom ko leen ko sëñ bañ na ñu waa njaarim lañu waa kër sëñ Mor la la leen sëñ Muntaxa nettali loolu ne leen loolee ma sëñ Mor waxoon ne ma ab denceng ci yow maa ngi koy door a gis dëgg-dëgg sëñ Mor nag dafay dafay koo xam ne léppam léppam moom dane fàng dafa mbiram dafa nëbbutu mm-hmm. waaye jataay bii nag mm-hmm. jataay bii day jataayam hmm. day jataayub Cheikh moom waaw hmm. waaw sëñ Mor ku ne xam na ne mës mësta yor nit daan dem bay làmbatu buy dikk ci moom du mën a gis hmm. waaye sëñ Mor dafa wax ne maanaam secret bi nga xam ne mooy saafara bët yuy metti walla ku nar a silmaxa mi ngi ci sama loxo ma téye ko sëñ bay am bés mu laaj ko ne ko loolu lan la mu ne ko seex mu ne ko juróom-ñaari seeraayu faal waaye moom xam nga fa koy jëlee lu mhm. bokk ak keneen ku ko wax noonu rek waaw mu ne ndax Seex Ibra nee na dafa gis sëñ Tuubaa waaw nee na Seex Ibra moo gis sëñ Tuubaa da koo gis dëgg loolu waaw xam nga Uwaysul Xarni doon na wax saaba yi ne leen gisu ngeen yont bi saa sala takk ndeeram ngeen gis waaye gisu ngeen yont bi ñu laaj ko kon nekkoon ba ba ci Seydina Aboubakrin mu ne leen ba ci Seydina Aboubakrin sax gisu ko ñu laaj ko mu ne man doon naa la ñaan sa boroom ngir mu wan ma xaqiqatu muhammadiyya kiiraay yi ma doon muril desoon na juróom-ñaar fukki junni waaye maa mujj daw ndax xam naa ne bu ma ci jegee say sëñ moo mas a wax ne arrêté ni sirra rasulullah hmm. suñu borom war na ma dëgg-dëgg yonte bi sëñ Tuubaa moo gis yonte bi hmm. sëriñ tubaa moo Seex Ibra moo gis sëñ <laughs> sëriñ Touba sëriñ Bachirou dañ ne dañ koo mooñaale ak yàlla bi Ibra nag dañ koo mooñaale ak sëñ baam ci moo tax seeni mbir bari bari yu ñu nuróole sëñ te sëñ Mor ñu leeral. waaw waaw sëñ Mor leeral na loolu sëñ moom xam nga da xool ci kii bi muy net bi muy bi muy wax. Euh, sëñ bay la ko waxoon ne ko ndax xam nga sëñ Tuubaa Cheikh Ibra nu ñu demee. waaw. mu ne ko ah bëggoon naa koo xam de. Mm-hmm. mu ne ko mi ngi mi ngi mel ne benn doomu guro. benn doomu goro ñu ŋàdd ko ñu xar ko mu def ñaari ŋàdd hmm. ŋàdd wii ku sant Mbàkke yéey ko ŋàdd wii ku sant Faal yéey ko waaye benn doomu goro bi te loolu fi ne soo xoolee ci sayir si hmm. dangay xool at yiñ dund ñu bokk hmm. lépp waaw mu ku ne muy juróom-ñaar fukk ak juróom yi soo xoolee itam dangay gis ne li ñu magantee moom lan rawantee tolloo at yuñ dund kon loolu loolu loolu daf ciy feeñ. Mhm. waaw nga xam ne kon sëñ Mor dafa am fu mu tegoon Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. waaw mhm. fu fu fu fu sori foo xam ne bari na ci murid yi eh, eh, lim daan wax naan ndax xam ngeen xam ndax xam ngeen lan mooy Baye Fall. waaw waaw ndax xam ngeen lan mooy Baye Fall. ne ko ah, bëgg nañ koo xam ne mu ne ko mooy ko yàlla baal. yàlla baal waaw ne ko Baye Mbàkke nag mooy ku yàlla ku yàlla nar a baal. walla ku yàlla yu bëgg a baal. waaw kon moom maam Jaase mi waajuram nga xam ne moom nga ubbee wax xam nga maam Jaase moom daw daw julli Jaase hmm. daw julli waaw déedéet waaw waaye waxtu wu nekk sëñ bi da daan taxaw si sàppe alxuraan rek hmm. lay jàng waxtu wu ne mi ngi taxaw di tari alxuraan am na ku mas a ñëw dari kamin hmm. fekk fa mag ñi di di di di di di di di di laaj laajub diingat waaw laajub diingat di laaj ne ki nga koo xam ne du julli du woor hmm. ne bu faatoo dem àjjana loolu laay laaj mbiram fu mu fu mu fu mu fu mu tege waaw ak it bëgg bëggoon naa xam it yéen kan ngeen def muy borom jamono eh. boobu mag ña fa ne ñëpp mën nañ ko tont waaye dañoo gis sa njaas ñëw ñu ne ko xaaral ba góor gi egsi dem ak sa njaas bi ne nuyu ñëpp jox ko loxo ne ko njool daal di toog ñu ne ko kii de ndo ndonga lii de daa am lu mu doon laaj ne ko topp si mu ñëw ba jege ko ne ko bismillah mu jaaraat fa mu jaaroon maam Ndiass ne ko aw yow de am na loo war a wax lu gën a yeey lool ne ko yow Cees nga dëkk jànqee sayr keroog la ko ma a gis waa ji ne teg bu yàgg mu ne ko aw falaa dëkk de mu ne ko bi nga génnee sa kër jaar nga ci benn bistron jël fa sàngara naan allahu akbar ne ko sàngara soo so nga naan mi ngi ci sa diggante der bu weex bi ak bu ñuul bi te soo ko toogut boo faatoo dem sawar kon yow bala ngaa lijjanti sawar ak kenn da ngaa war a seet sa sawar ak bopp te loolu kii la koy wax mooy ki gën a ki gën a ñàkk solo ci taalibe borom jamono maam Ndiassé daan daan daan daan wax na ne toog naa ci kanam sëñ Tuubaa hmm. di xalaat baaxam gi di xalaat baaxu Seexu Xaadim gi hmm. nee na nee nee ba sori ne sëñ bi moom a delloo si sëñ bi ne ne ma njaase di ma woo dégguma ko ndax sori gu ma sori ne ba sëñ bi yëkkati kàddoom njaase ne ma wuyu nam ma wooye wuyu ca kaw ndax damaa sore woon ne sëñ bi ne ma njaase loolu ngay xalaat mi ngi mel ni nga taxaw ci suuf yëkkati sa loxo ba koo teg ci kaw asamaan allahu akbar noonu la baaxu baaxu sëñ Tuubaa gi waaw moo tax maam Ndiass da wax sëñ Tuubaa ne ko ah. mbàkki ñun matuñu matuñu lay doo a de waaye nag moo fi ne. fexe amu waaw waaw. waaw Baye Ndiaye sa morom mooy euh, waajur président waajuru sëñ Mor Mbaye Cissé mais xamante ne moom diggante maam Cheikh moom bëgg gi foo ko natt moom xam nga am lu doy lu xew sax mm-hmm. loo xam ne bi sëñ Mor tàmbalee la dama dama traversé mm. sëñ Mor xamul lu doon sëñ Mor Mbaye Cissé mm-hmm. dama ma ne ki ma nettali nag mm-hmm. ma nga ca jotaay ba toog da koo fekkee ma sëñ Cheikh Fall Baye ko nuyu mu téye ci loxoom na ko dama laa weg lool mu ne ko am ah, man mu ne ko ragaluma la yow Cheikh Ibra laa ragal man sama maam man ma tudde mm-hmm. jur sama bàyyi mm-hmm. mas naa dugg xalwa mm-hmm. te boobu sëñ Tuubaa wute gul yoonu murit gis la yow mii ak sëñ Cheikh Mbacke genn defaat ma ak sëñ Mourou saa Mbacke ak Cheikh Mourou Moussa Fall sa bàyyi sëñ Cheikh waaw sëñ Cheikh Fall ne ko nga ne lan mu ne ko waaw te ba sans moom génn ci xalootu daf na li des ci lislaam yàlla ahmadu la ko jox moom la njëkki moom la ñëppi waxal waaye ku koy njëkk wuyu woon naka lañ ka njëkk maanaam ka woon naka lañ koy wone Ibrahima Fall la tudd ko ci misaal ni ma la mën a misaale te boobu dara xewagul dégg boobu suñ tubaab wutegul laax ne daan ne ni ma la mën a misaale mooy ñoom ñaar ñoo ñii Moustapha leen di njëkk wutu te ñaari Moustapha yooyu seex leen di njëkk wutu ne ko nag te ñaari seex yooyu dañ daj kapp jamono joxoñ sëñ Cheikh Fall loo ko xam naa la bu yàgg te ñëwagoo jamono waaye defe naa ko xam sëñ Mourou Moussa Fall sëñ Mourou Moussa Mbacke xam sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Fall Baye Góor xam na la sëñ Mor Mbaye Cissé gisoon loolu gis bu yàgg la waaw waaw na joxoñ koroog am na ci kook ci jotaay te mhm. ma ko nettali nee na ma dafa jooy bañ defan day faatu ci bis bi mhm. yuuxu bañ defan day faatu sëñ Mor joxoñ sëñ Cheikh Fall xam naa bu yàgg te ñëwagoo jamono mhm. moo tax moom euh, fi mu tegoon Cheikh Ibra Fall sëñ Moro wax na ko léegi maanaam da koo xam nag dafa xam Cheikh Ibra da koo xam ndax du xamante yi nii dafa da koo xam ndax sëñ Mor bu demee ba ne maam Cheikh Ibrahima rek gis sëñ Bamba waaw waaw waaw ndax ci waaw ndax ci gouvernement bi la bokk moo tax eh, waaw dafa bokk ci gouvernement ba pare te dara la ci nag sëñ Mor Mbaye Cissé mm-hmm. waaw te nitu yàlla yëpp xam nañ ko mag ñëpp xam nañ ko ñi amoon cër ñëpp xam nañ ko mm-hmm. ndax cër bi ko suñ borom joxoon moo yombul ci jamono sëñ Mor xam nga sëñ Mbay wax na ko léegi te dafa xam li sëñ Mor wax na ko mooy juróom-ñaari Seex Ibra yi bokkut ak yow mi ñëw tudd ko déedéet bokkul de dafa xam ne taw ndax nee na bëtub Seex Ibra di sëñ Bamba te comme que masaan def say bët nga wér ak ñu bëree bëree bëree bari am na ku ma nettali ci jotaay na ma fekk toog naa ci jotaay maag am maag am ku ko nuyu mu ne ko yow xanaa Baay Faal nga mu ne ko yow noo xamee ne Baay la mu ne ko sëñ Tuubaa dama jox benn longueur boo xam ku ma ko dëpp xam li nga doon ak foo ci yàlla te ñi fi toog ñëpp kenn ki ku nekk ci yow gis naa ñaari malaaka yi te gisuma ko ci yow ndax Baay Faal duñ ko bindal dara ci laa xam ne te te am na ku ma nettali na ma bokkoon yeggoon na ci sax yow yooyu yooyu mu daan joxe passeport yooyu nee na ma léeg-léeg nit daan ko ne Baay Faal la sax mun na ne doyewu ko dara kon kooku fi mu tolloon fi Seex Ibra du yii yëpp moo tax ma wax la ba ca jotaay bi nan ma ne la am nañ gan te jotaay borom jotaay bee ñëw ci jotaayam ndax sëñ Mor Mbaye Cissé dafa bëggoon Cheikh Ibra da ko doon dund mag ñi ci mujj ñëpp sëñ Baye nettali na ma ko ba tàyyi ñoom Baye Ibrahima Thiam Baye Cheikh Ndaw ku mel ne ñoom sëñ Mayib Ñang mu njaarim ñu mag ñi mujj foofu ñëpp danaan yónnee ci ñoom ngir mu gëstu ci maam Cheikh Ibrahima Fall kon kon kooku Cheikh Ibra ñoroon na ko lool bëggoon na ko loolu itam tey fonkoon na ko te am na fu ko teg te xam ne Cheikh Ibra li doon ci suñ borom xam na li mu doon te ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim moo tax cër boobu la ko delloowaat xanaa xamoo ne ñem yar sax ay Baye Fall lañ sëñ Mbaye Ngiraan moo ma wax ci làmmiñam Baye Mbaye nee na man mosumaa jéggiraay bi julli mosumaa julli kër Cheikh Ibra Baye Mbaye ma ko wax nee na bu ma xasee jéggiraay bi sama jëb bi dootu laal suuf ba ni muy ñibbisee. bay bay mbay ngiraan bobé di ñaan suñu borom gën ko fay yagal te mo ànd ko wër wax dëgg yalla mom euh, moy li nga wax rek. ñun ni euh, Cheikh ibrahim rek ka tax. saa suñu ko gisé ndey sa da ngay gis xar kanam mom gën ni bëllé ngir maam Cheikh ibrahim Fall képp. mom lañuy andal mbokk yi and euh, kaak waa régie ngir tewlu yenn kaddu mu yëkëti ci jëm ju tedd ji ñu waxtané di Serigne Mor Mbaye Cissé ak maam Cheikh ibrahim Fall. Cheikh ibrahim Fall. dellu waxaatoon sëñ Abdou Karim Touré ne ko ci jamono yi nga xam ne sëñ Touba ngi jóg Cheikh Ibrahima ngi jóg di wër Serigne Touba ba mu fa demee euh, kër sëñ Mor muttu fa Mbombe daf ko ne Abdou Karim day euh, ba ma demee sa kër maam liggéey bii fa la ma dale am liggéey bu ko Cheikh Ibra won sëñ Abdou Karim Touré ne ko lii bi bii sa kër maam la ma dale waaye booba kat Cheikh Ibra fi naafila alquran booba alquran ñaari rakk ko Cheikh Ibra Fall di def. moo tax ñii ñiy wax naan Cheikh Ibra jànguñu dañoo amut xam-xam rek wala yëruñu téere yu bari waaye Cheikh Ibra dafa dajal téere yëpp nun amoon na mbindam sëñ moor Mbay Siise sama sang ba yoroon na mbind mu seex Ibra bind li tax génneetu ko daa am benn bés mu am mbind mu mu ca génne di ko won mbooloo mu fa nekk di leen ci bégal ngir bëgg ñu barkeelu ca am koo kayit ba mu àggee moom da daal di jël war na ko seex ko daal di koy lekk kooku nag day daal di sakk bunt boo xam ne ku yoratee loola it war koo génne dootoo ko mën a génne moo tax mu ne Cheikh Ibra Fall booba ñaar rakk la daan def alquran waaye nee na su ma saa wax taxaw ba ne allahu akbar mbooleem ruuxi awliya yëpp dañu koy jóor ci kanam Cheikh Ibra Fall mbooleem ruuxi wàlli wi bu ne allahu akbar kàbbal ñaari loxoom rek ruuxi wàlli yëpp dañ koy jañ jal ci kanam Cheikh Ibra Fall kooku nag kon euh, moom mooy jëmm joo xam ne ab gisam dafa sori ab gisam dafa sori moo tax Eh, sëñ mo Moïse sama sang ba ne woon Cheikh Ibrahima moom rek a gis tuwa, Touba gi gis Bamba moo tax nag moom pas-pasam ak ak gëmam tax eh, turu Cheikh Ibrahima Fall juróom-ñaari yoon la ko daan wax tafli ko ci borom bët yuy metti moom muy faj ay bët da ciy faj ay bët moom sëñ sëñ Mor Mbaye Cissé kon kooku gëm gim gëm Cheikh Ibra ak fa mu teg wa Ibra mën nañoo waxtaanee mbiram ci bés boo xam ne Cheikh Ibra faale ko moom muy sëñ Mor Mbaye Cissé xam naa sëñ Mor Ngiraan dana ci ñëw ak ñi ma àndal ma sama sang bi de bëggutoon àddina bëggutoon aw ñam bëri wutoon ay wax bëggutoon it ay nelaw xam naa foofu laay taxawee bëggul alal ndax wóor na ma ne lu nit bëgg dana ko tax a jóg bis <coughs> sëñ Mor may Cissé bëggul alal ndax lu nit bëgg wóor na ma ne dana ko tax jóg ti la jóg bis ngir wuti alal mësu koo laaj kenn itam ndax mës la ni fifteen te it mës la jaay du commerce du jaay du jënd du bay du tukki lenn luy lijjanti ab dërëm sëñ Mor Moussa Diané ci yàlla rek la nekkoon ak yonent bi ak sëñ Touba alxuraan ak xasida sëñ Touba ak ku ñëw mu faj sa aajo yitte joo andi mu ñaanal la aajo ja faju ci loolu la nekkoon eh, kon moom mm, googu wet génn na ci. demee eh, ba am <coughs> ba lépp na gàññi taxul dara soppi ko ca. ci la mu daan def ak la mu daa wax bëggul lekk itam bëggul woon lekk ndax mësta beru sëñ moru moom ñëpp daan bokk man mii ñu daan bokk moom ci laa bokk sëñ moru moom ñëpp daan bokk mësta beru kenn mësu koo toggal te borom kër xanaa yàgg nañ koo dara man mii sax léeg-léeg ñu beral ba dara <coughs> waaye sëñ moru mësta beru moom ñëppay bokk nabli waaw naka jekk moom du beru moom ñëppay bokk kon bëgg lekk waxit mësu nah bëgg ndax lu dul alquran ak wakam du ay waxam ba tax na ab kaas la da yor ca jamono jëk ya buy amé lu muy jang diko jang diko tafli ca kaas ba bu nit waxee ak mom mu doona tafli euh waxa koka tontu ko bu kay bayyi rek mu wat na ci lamuy jang xam alquran day doon wala hadith ba muju bi mu toge ben barab muy den don ak karaswal bu ñuy duy suuf bam fess nga xaye buy bëgge wax day bind ca wal nga fam tollu su noppé kamuy waxal rek day xolaat lam bindon dal di wiyat ca lamuy jang wala xasida kon kon bëri doy wax nelaw nak mom mom mom mom moom mësta am pilian amul kenn kula man ne ma fa ma sa fek seigne Mor mu tok ci pilian ni ni ki li fay def am pilian tok ca wala togu Dedet. wala laalum way bu jant soye nga génn ci biti toog ca laalum way ba kenn mës koo gis ak seigne Mor Bay Siise amul kenn kula man ne ba tam mës tege kon koku musta la dem na ba su toogee du mën a jóg guddi ngir topp xasida yi ak alxuraan waaye daa mu joon wutlu ak buum ñu takk ko ca kaw nee bi mu yooru nga xay su bëggee jóg day jàpp ci buum gi jóg taxul mu nangoo toog kooku kon moom mooy jëmmi sëñ Mor Mbay Siise maa ngi balu àq ñëpp di baal ak ñëpp yàlla na nu su borom mboole jéggal euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa Euh, sunu Baye Serigne euh, Baye Mbaye Ngiraan ñu ngi koy ziaraat bu baax a baax te di ko dollee ñaanal ngeen xam ni waxtaan bi waxtaan bi yaatu la macha allah incha allah dinañ ci dellu si. fii ak euh, ëllëg wala gannaaw dinañ ci dellu si incha allah indi leen intégralité bi. tegal leen ko ndax nag waxtaan wi lépp njëriñ la. Mm-hmm. si Serigne Touba si maam Cheikh a Fall ba si Serigne Mor Mbaye Cissé sangam bu tedd bi sunu sang ba nga dégg. qualité yi mu wax si Serigne moor mbay Cissé te sànq nga am yoo si junj. rawatina euh, nga ne ku am lante woon ak ñëpp la. ndax euh, euh, njaboot Sëñ Tuubaa gi. Mm-hmm. daan ñu fa jukk ñi nga xëy ne dañoo bokk ak ñoom l'islam gi dañu nekk si benn tarixa daan ñu foon jug mm-hmm. ba si ñi nga xamante ne ñoo séq réew mi waaye nag suñu borom dogalit si mm-hmm. kaw loolu waa kër Serigne tubaa waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall wóolu ko doyloo ko jël seen njaboot dénk waaw waaw loolu xam nga sëñtuwaa day Seex Ibra Seex Ibra di sëñ Tuubaa eh, njabootug gi eh, xam nga boo ne sëñ Muntaxaa mi jiite yoon wi rek xam nga waajal am sëñ rek ci alxuraan mu tàmbalim njàngam ci yow rek moom daf daan wax ne eh, sëñ da Abdourahman Lo moo jàngal mbakki mbàkki yu mag yi maa jàngal yu ndaw yi loolu la daan wax sëriñ Seexum sëñ Saaliw mii kaaminam bu njëkk foofu la ko bindee ca moom ak sëriñ Moustapha rakkam sëñ Mamour mii nga xam ne mooy xalifa sëñ Murtala eh, moom moom foofa la nekkoon sëñ Mor a ko doon jàngal alxuraan waaw naka noonu boo demee biir kër sëñ Fallou sëñ Ateex sëñ Mour Mamoun Njeng mi nga xam ne ci ab sëtam la waaye sëñ sëñ Fallou ko fa indi sëñ Ateex moom sëñ Fallou wala soo soo yeboo dem dem dem delluwaat ci mag yi yoonu murid bi sëñ sëñ Saliou Touré bu cees foofa la génne sëñ Mor a ko yoroon doon ko jàngal Eh, su la neexee demal Darul Moxti waaw eh, sëñ ko so gànnaar eh, sëñ Modou Maxtaar moom sëñ Saawa Balla ñooñu sëñ Mor ci sëñ Mor lañ génne moo leen jàngal bu la neexee demal Daru Salaam waaw sëñ Jiili sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mamadul Mamoun tey foofu foofa la newoon boo nga xam ne kon boo koy lim boo demee ci boo boo demee ci yoon mm. Cheikh saa Dieng kër Njenne sëñ Latif mi ngi xalifa sëñ Aïssa sëñ Alima ñoom ñoom ci sëñ moor lañ génne waaw nga ñëw nag kër Cheikh Ibra bi nga xam ne mooy jataay bi waaw waaw njabootug Cheikh rek gi da ngay gis ni sëñ Asan ñoom dafa indi njab mboolem njabootam mm-hmm. waaw mm-hmm. sëñ Mourad Ablaye mm-hmm. gis nga ni sëñ Cheikh Bintu man mii ba ci ñu mujj ñi nag man mii maag sëñ Cheikh Binto ñoo kon ku ñu yoroon di nu jàngal waaw waaw noo ngi koy siyaare bu baax moom itam muy ku fonk daara ji nag koo xamante nii ba tey jii la gën a dund daara ji tey jii la fa gën a nekk hmm. waaw simblaat mi mi mi mi ngi topp émission bi mi ngi dégg li may wax hmm. waaw xam ne sëñ Cheikh Bintu taxawaayam taxawaay bu mët sëkk la ci biir daara ci mhm. waaw mhm. boo xamante ni lépp lu nuy def mhm. ba ci ba ci ba ci tabaski mi muy jox alxuraan di ko jox sëñ Mor Mbay Seen da koy ba tey sëñ Cheikh Bintu koy def waaw jàmbar di di koo xam ne kuy dund daara ji la ngi ñaan suñ borom yan bii mu ko jox muy taxawaayu sëñ sëñ Modou Ablaye bii suñ borom téyal ko ko waaw te moom wut la waajuram sëñ Modou laay waxoon sëñ Mor Mbay Si Mhm. ne ko dama koo làq si ci yow waaw mu joxaat mhm. ko sëriñ Bas man mii mu bokk ko ñu yor naka noonu suñu di xëdi mhm. xam nga njabootam yëpp sëñ Fallu ñoom ñoom ñëpp fal ci ci ñoom sëñ bi xadi moom sëñ lamp boo ko nuyu waaw ak sëñ lamp <laughs> waaw waaw Cheikh Ibra moom sëñ sëriñ Wasan sëñ bi xadi boo ko nuyoo ne ko kër Cheikh kër kër sëñ Mor laa jógee sax daf lay ut fuñ la dal ak ak teraanga ngir fu mu teg sëñ Mor naka noonu euh, euh, ñoo ngi siyaare bu baax sëñ sëñ Falloum sëñ Modou Aminta di jaarale siyaar bi ci jëwrinam sëñ Moussa Mar waaw di ko di di di di di ko siyaare bu baax mm-hmm. ndax sëñ Fallou moom mooy jëwrini Cheikh bi ndax mooy mm-hmm. jëwrini sëñ Cheikh jëm ah, waaw bu baax mm-hmm. ña sëñ Maoun maa ngi gis nga e, e, ca jataay ba maa ngi lay gis ci gasum e, kii yi waaw ci gasum waaw canalisation <laughs> ah, ñoom moom ma ca ñoo ngi koy ah, siyaare bu baax moom itam ku ne gis digganteem ak kër sëñ Mor waaw sëñ daam mi loolu daa yàgg sëñ Modou Minta waaw depuis ci sëñ Modou Minta hmm. xam nga sëñ Modou Minta moom dafa bëgg alxuraan hmm. waaw am ci ab cërit nag waaw naka noonu it hmm. eh, kóllëreem ak sëñ Mor doon kóllëre gu dëgër waaw gu goo xam ne am na ci yoo xam ne sax ma ne ke mu toog maanaam yar gi jëm gi taalibi gi ne ci moom da ngay yéemu waaw ci bu ko fekk ci ñaari jotaay benn bi kër sëñ Cheikh Bintou benn bi kër Badiane Awa Gaye waaw waaye boo gisee pas-pas bi ak taalibi gi rek sëñ bi xam nga xam nga turandoo moom. waaw xam nga sëñ laxat moom. buñ la ko tuddee dangay jël ci moom moom faaw ak taalibe moom day feeñ ci yow. moom nag da caa da caa jël lu baree baree baree bare kon suñu dellu see ci. lii nga doon wax ci sëñ moor eh, bu jàllee loolu njabootu lislaam gépp sëñ moor dafa am lente woon ak ñoom. waaw waaw waaw. Eh, sëñ sëñ sëñ Seex Tijaan Si. Al Maktoum. mii daf daf ko daan seet si. mësta ñëw tubaa teggi ko waaw mësta ñëw Touba teggi ko da daan ñëw këram te sëñ Cheikh Tidiane si nga gis ko sa kër kër yombut waaye nag waxtu wu nekk da daan ñëw di seeti sëñ Mor ndax kóllëre am na jamono boo xamante ni jox yónnee na sëñ Cheikh sëñ Cheikh Tidiane si jox na sëñ moor téeméeri junni alañ may sa sekk yàlla ko suñu borom dolli ay yërmande ak leer moo fi nekkaloon booba yor baatub sëriñ Tuubaa ci Thiès Alaaji May Seck moomu. Alaaji May baax a baax njabootam Sëriñ mm. euh, ak euh, mboolem njabootam gi nga xamante ni ñoom mm. ak euh, lépp mbokki mbokki Sëriñ ñoom ak Sëriñ Alim ah, seetal loolu xaw ma kon ah. Alaaji sa Seck moomu soxna soxna Fat Seck di soxna sa Sëriñ Alim Thioune seetal loolu ndeysaan ah. donc waaw Alaaji May sa moomu looloon mm. mag mu baax mu ngi muy rabbu di liggéey bu am solo nekk loon sëñ Fallu tegoon ko kees mu newoon fa mm-hmm. yoroon kàddu sëñ bi mm-hmm. moom la sëñ Cheikh Tidiane si joxoon téeméeri junni ci jamono boobu. 500000 booba xaalis la. waaw jamono yooyu sëñ Mbay nee na eh, maanaam eh, xambu taal bi. Mm-hmm. sëñ Mor di saa saaf kafe. Mm-hmm. xambu taal ak saaf kafe ci laa toll booba. te sëñ Mbay mi ngi ci juróom-ñett fukki atam ak benn. Mm-hmm. xam nga kon loola booba 500000 jamono yooyu xaalis. waaw waaw léegi sëñ Cheikh si jël 500000. jox ko El Hadj Maysa Seck ne ko joxal ma ko sëñ Mor si sëñ sëñ bay nee na fi may saafe kafe suba gi nii ba toll ci di ko defar di segg la lañ may sekk agsi booba mooy ne ci biir keesu daara gu sëñ moor gi hmm. ne ko xamal ko ne ko sëñ bi la soxla mu ne ko kafe gi moo koy séddale ci ci daara ji xaaral su ma àggale ko dem yëgal ko kafe gi waxaale ko bi mu àggalee li muy def daal di jóg ñëw sëñ moor xamal ko ne ko am kafe gi noppi na am na gan gu la fiy seet muy Alaaji May Seck la tudd Thiès la jóge wax na ne sëñ Cheikh Tidiane Seck ko yónni Thiès mm-hmm. sëñ Mor ne ko kon kon na ñëw bala maa May sa ñëw mu dem ko ànd ak ba mu ñëw sëñ bay di bëgg a génnaat sëñ Mor ko dee toogal fekke jataay bi lii moo taxoon est-ce ne ko toogal fekke jataay bi mu toog mm-hmm. Alaaji May Seck daal di génn téeméeri junni ko sëñ Mor ne ko sëñ Cheikh Tidiane si moo woon naa la ko andi jox la sëñ Mor daal di koy téye ne ko duma ko ko delloo de ndax kon mu doon suul adab muy muy muy ñaayu ay teggin waaye du ma ko lekk du ma lekk xaalisu mbàkke mbàkke du ma lekk xaalisu ko sant si ah. waaw waaw ah, daaw lekk déedéet waaw ne ko ne ne ne ne ne ko nag léegi ni may def mooy mhm. dama ko eh, daal daal di ne daal di ne sëñ bay téyeel xaalis bi mu jox sëñ bay mu jox sëñ bay xaalis bi sëñ bay téye mu mu mu mu mu daal di laaj eh, sëñ sëñ Mor Samb mii waajuram baay mbay Samb Baye Mbaye Samb mooy waajuru sëñ moor Samb maa ngi koy siyaar bu baax ci turandoo sëñ Mor mbay Seye la ko jàmbaare la ci liggéey bi di ànd ak ñoom mu ne mu ne mu ne ko mu ne nañu woo euh, sëñ Mbaye Samb bay Mbaye Samb sëñ Mbaye Samb mu jox ko xaalis bi téeméeri junni booba ay euh, mbiri nag ak yooyu li doon liggéey ci mbirum ndawal mm-hmm. mu ne ko téyel téeméeri junni yi mag mu wàcc liggéey ci biir euh, kër gu mag gi bokk ci magi sëñ tuwaay ak biir dëkk ba alaaj cerni kanc ak biir dëkk ba foofa mag ña fa ne di magi Seydi Hadji Malick gi ku ci wàcc liggéey moo xam magum Seydi Hadji Malick la mm-hmm. wala magum sëñ tuwaa la ku ci wàcc liggéey mm-hmm. na nga ci toppatoo ci xaalis bii aw nag dem yóbbu ko ca bis booba mm-hmm. tuyaaba ji dellu ci sëñ Cheikh Ahmad Tidiane si allahu akbar dégg loolu loolu loolu loolu la ko sëñ Mbay Sàmb def 500 millions yi ba mu jeex ku jaxasoo woon ak sëñ Mor la tudde na ko doom mi ngi bokk ci ànd bokk ci suñ kuréelu turandooy sëñ Mor yi waaw ma profitoo ci moom sax siyaare turandoo yëpp waaw Euh, sëñ Balla Ndiaye Kaolack mm. ku ne xam ne ni mu demee ci sëñ Mor Mbaye sëñ Mor ko wax na ko yaay sama drapeau ci Kaolack waaw moom itam doomam sëñ Mor Ndiaye mi ngi koy mi ngi ñuy topp mm. ak ak ak sëñ Mor Sourang mi nga xam ne moom itam ku am taxawaay la mm. ci liggéey bi nga xam ne mooy trésorier daayira turandoo yi moom itam ak mboolim sëñ moor yëpp rek sëñ moor sëñ yi nekk bitim réew dañ ma dañ may woo sax sañ sëñel bi ba léegi ku me sëñ sëñ sëñ sëñ Mor euh, euh, Ndiaye esp euh, sëñ Mor Ndiaye mu mu mu sëñ Youssou Ndiaye nga xam ne ma ngi ci Brésil ak sëñ moor ture ci Italie bokk yëpp dañ boobaak léegi ñi may woo mooy li nga wax léegi ci li ngay ubbi kii bi kon sëñ Mor dafa am lante woon ak ñëpp waaye naka noonu chrétiens yi itam ñi nga xam ne duñu ay jullit mm-hmm. dafa am lante woon ak ñoom mm-hmm. waaw moom nu ne la waaw waaw moom mësta nangu waaw moom moom daf daan bañ ku sikkal kenn waaw bëggut ku sikkal kenn da daan wax ni waaw waaw wax ni jëmm ju ne mi ngi mel ni jëmmi gàtt ab gàtt la daan misaal nit nee na gàtt day am meew am am deret am ay waaye nit ñi buñ defaree gàtt ba danañ fàtte yooyu yëpp ya ca ya ca am lor mm. danañ ko fàtte ba jariñ wala ca am jariñ waaw mm. dëgg la nit ñëw na ci moom ne ko diw de yi lim lay wax bu demee ci jataay yi muy wax ci yow mu ne moom day am na ñaar fukki at yoo xam ne lu rafet rek lay wax ci man ñu ne ko waaw waaye léegi daal la mu doon wax lépp sawaan na ko mu ne naa ko jàppal idda kon mu ne ko ku idda ko war a jàppal naa toogaat ba amaat lu toll at yi mu doon wax ñaar fukki at mu koy wax ci man savaan bu boobaa nag ma door a seet ba xam lu tax moom ba ci donge yi mu yoroon sax dafa amoon pédagogie ñaari gone coow nañ werante daw ñëw xam nga ay xale boo leen yoree donge yi daara kenn ki ñëw ne moro ne ne ne fekk sëñ moro ngi toog gan ñi ay gan di waxtaan mu ne ko diw de dalaa saaga gone yi sëñ ne ko ah man mu ne ko ah, mu ne ko mu ne ko wool ma ko ko kay yow yaa saaga sëñ moro ñëwal moom ñëw ab sëñ daala mu ne mun sëñ mor ne ko ana ana ma saaga mu ne ko diw mii la kii mii moo la saaga jaar ci turam sëñ mor daal di làmbu keesu daa gi fi muy def weccat bi làmba làmb ba jot aw ñaar fukk génne ko daal ne ana ki ma saaga mu ne ko am ñaar fukk jox daal ne ay ca daw leen bañ génnee de mu ne fi ne bu ma saagaatee duma ko wax si ndax da koy iñaani ñaar fukk waaw bu ma saagaatee du ma ko wax seen koy iñaani <laughs> ndax booba kooku ay duma la ko yéene woon bëggoon ñu duma ko moom ñu jox ko ñaar fukk moom mi ko boole si joxuñ ko dara sax <laughs> waaw mu ne fi mu ko wax seen ndax da koy iñaani ñaar fukk nga xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa a jàngale waaw dafa amoon pédagogie man man man ni ni mënoon a jàngale alquran mm-hmm. mm-hmm. man a ni la mënoon a yare waaye ni la mënoon a jëflanteeg ñëpp waaw doonoon koo xam ne itam ku ku ku yaatu dënn la waaw waaye nag fees dell ak batin waaw daf daan wax ne ku sa aaju nër ta faju doo ma gis waaw waaw ku sa aaju nër ta faju doo ma gis maanaam gis ma man sababu aajo junaar a faju la mm-hmm. waaw mm-hmm. lool lool lool la daal bëggoon na maa xam itam photo yi mu daan wékk ci néegam nga xam ne ku nekk mu ñaan fekk ko lu waaw waaw xam nga loolu loolu sa question bi eh, sëñ sëñ Satiyaan si mi ma doon tudd moo ko ko njëkk laaj ah. waaw sëñ Satiyaan si day ñëw ci saaru sëñ moor xool gis mbëri làmb yi ah. mu xool gis président yi mhm. président bu nekk dee na maa ngi gis Léwo Mba mhm. gis gis gis gis Houphouët-Boigny eh. gis président yëpp africain yi tubaab yi ma xool fii gis mbëri làmb yi. Mhm. wëlbatiku gis artistes yi waykat yi. Mhm. nee na ma xool waaw. photo ku mës a siiw rek. wala ak ñeneen sax. Mhm. fees dell. nee ma ne ko waa sëñ bi lii nag. sëñ sa tiyaan si moo moo moo toon moo moo laajoon sa question bi. sëñ Mor ne ko fii kat ku ne dafi wàcc ma bëgg ko fi ñëw rek fekk fi sa waay. maanaam damay damay séentoondoo ñëpp rek <laughs> ku fi ñëw fekk fi sawaay waaw nga xam ne nga xam nga xam nga xam ne moom nekk doon ñëw si moom ku nekk ku nekk daan ñëw ci moom mm-hmm. te te ñëwee mu faj waaw noo rek mm-hmm. mu faj mu faj ko moo xam aajo yu saaxir nga am wal wal wala wala aajo yu bàyyi am na am na koo xam ne dafa daan am na loo xam ne daw ko nangu moom mm-hmm. waaw eh, nga ñëw nii ci kil ci kilifa bëgg koo yëkkati ba daaneel keneen Mm-hmm. moom soo ko masaan a def rek gis jikko mm-hmm. waaw bëgg bëgg a lijjantiku ba tax nga bëgg a daanil nit mm-hmm. waaw léegi jamono yàqu nañu bari dinañ koy def waaw waaye loolu loolu soo ko a def rek am na ko mas a ñëw ci moom sax di di di di saboté njàngum njàngum français waaw naan ko Cissé yow li nga nekk moo baax di jàng alquran di ko jàngale nga xam ni lii la fi yonent bi saa sallam bàyyi woon sëñ Tuubaa lii la santaane nga nekk ci waaye am ñoo xam ne addunaa leen ñor seeni doom duñ jàngal alxuraan français rek lu ñuy jàng école yi rek la nekk waaw di wax sëñ Mor di bind rek mhm. waaw moom xam na la ko tax a jóg xam na ne la muy wax lu mu teg ci kanamam la waaye gëmu ko moom sëñ Mor di bind rek mu wax ba daaneel sëñ Mor ne ah yow di sëñ bi da ngaa bañ français lool da bañu tubaab lool man ni ñaar téeméer yi ma la bëggoon a jox sax boobu ñaar téeméer day xaalis ñaar téeméer téeméer yi ma la bëggoon a jox sax day ñemeetuma la koo jox ndax euh, Touba ak Tiwaawan yi ngay wax yëpp moole wuñ ko fa waaw tubaab yee moom te ki ma ko jox sax tubay tubaab la sol gis nga ko noonu moom nga taseen muy génn te yow ni nga bañee tubaab ñemewu ma jox ñaar <laughs> loolu def de boo ko defut dara du ko jar <laughs> boo ko defut baax de boo ah, wa sëñ bi loolu ëpp naa sëñ Mor ne sëñ Mor nag fekk sëñ Baye nga toog mu ne ko jógal taalal ma làmp bi sëñ Baye ne ma jóg jël bes contact bi lambi tàkk sañ sëñ Mor ne ma waaw ci ci ci ci mbooleem awliyaaw yi ak anbiyaaw yi ak awliyaaw yépp ak ñi fi mas a jaar ci nit yàlla yi nga ñi ñuy wax ci wàllu diine ndax jàggagun ci histoire kenn ku ci liggéeyagul làmp bi <laughs> kenn ku ci liggéeyagul làmp bi ndax jàng waa jën teg mu ne ko ah ñi ko liggéey nag man de liggéey bii ngay wax bu demee ba guddi gi lëndëm ba gisatuma moom mii lay làmp mii lay taal mën a wéyale liggéey boobu te da daan te sëñ Mor daan wax ne montar bu moo wax dëgg ndax am ab dox taxaw bokku ci. waaw foofu la ne woon waaw waaw wax dëgg. dëgg nee na dox taxaw bokku ci. waaw montar bu taxawee moom yaakaar naa ne musiba la daan wax. mu ne ko nag liggéey bii loola laay bu bu guddee moom lay wéyale. dëgg la ah góor nga fekk. daal. sëñ Mor sëñ ne ko ku mel ni ñu mel ni yéen a yàq àdduna. Mm. Ah, waaw waaw waaw yàlla rek lay gis si ñoom. yàlla rek yàlla rek. waaw waraaxi kulluhum xaq man xalax. di mm. sëñ Tuubaa wax ci Nahjul Xadalaaj. Mm. waaw naka noonu it dafa dafa dafa fonkoon moom sëñ Mor dafa fonkoon ay ay ay ay ay ay ay kilifaam sëriñam yi mu jaar ma dem. mi nga xam ne moo ko doon jàngal nga xam ne mooy mooy maam maami sëñ Abdou Lahad mi ak sëriñ Bachir. nga xam ne ci moom la jàngee xam-xam ginnaaw bi mu jàngee ci bàyyam alxuraan ba mokkal ko sëñ euh, euh, dafa wëlbatiku di tarbiyewu sëriñam boobu sëñ ma dem euh, doon na ko defarloo bés mbaar sëñ Mor dafa dem yëkkati am néegam dindi sàkket yi ko wër ne ne ne jàpp leen bant kii sempi xet yi mm-hmm. dem sampal ko ko defal ko ko mbaar moom du yorutu dara néegu boppam waaw néegam la sempi te da ko doon mbaar boobu mm-hmm. moom la ko def waaw waaw Baye Fall la doon la doon dund bi muy bi muy bi bi muy jàng tafsirul Quraan mm-hmm. sëñ ma dem di ko ko tëralal sëñ Mor lu mas a jàng da koy bind. Mm-hmm. li ko xam-xam jaraloon la jëralul ñu bari. lu mas a jàng da koy bind. bu dikkee day bind araf bi bind firi bind saraa bi. Mm-hmm. bind ko ci daa yu wuute yu wuute. Mm-hmm. alxuraan yëpp da koy binde daaju xonq wolof yi koy firi yëpp mu dugal ko muy ay daay ju ñuul ci biir saraa yi mu def ko ay daaju wert di bind ko ba mu àgg. nga xam ni kii moo ko koy tafsiral bu ne bismillah yi ci misaal ci turu sunu boroom laay tàmbalee samay wax. Mhm. day bind loolu lépp def bismillah ji mu xonq mu bind ci turu sunu borom laay tàmbalee samay wax. Mhm. ci daaju ñuul mu def ko ba kaamin bi àgg bàqara ba minal jinnati wannaas kaamin baa ngi fi ci kër gi. Mhm. bi mu noppee da koo yanu yóbbuwaat ko ba ci sëñ ma dem mu ne ko sa kaaminu tafsir bi mi ngi mi ngi jébbal ko ko tey waa kër sëñ ma dem ñooy joxe kaamin boobu. te moo ko bind. Hmm. naka noonu it bi koy jàng tafsir bi ak l'ihrab bi lépp seigne Mor dafa culture dako don leguel lolou ba legui fi ni tere yoy yep dako traduire en wolof ba legui traduire yoy ñanga fa ba nopi yoron ben façon pédagogie bo xamné ci jàngale alxuraan ak tënk yi ci misal rek euh buma jëlé ben misal sortu bakara rek runge yi ci am ben gi da la daan wax ne la maa hiya moo njëkk ma hiya moo mujj maa lawnuhaa dib diggéel خاله ودوه لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر حوال بين سارك فلو ما تقول قالوا ده لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناس قالوا ده لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تصاب علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون nga xam ne foofu mu pour mu bañ nga jaxase ko mu ne la maahiya njëkk ma moo mujj maa law nu xadib <laughs> waaw dib diggéen léeg mu ne la fa amma mooy magum wa amma ne la fuñ ànde fa amma mooy mag wa amma mooy rakk mm-hmm. fa amma mooy waaw <laughs> waaw am fa fa taqa mm-hmm. wa asara alxayata dunya fa inna aljahima hiya almahwa وأما من خاف مقام ربه فأما من ثقلت موازينه فهو في عزة راضية وأما من خفت موازينه فهو mu ne la fa amma nga xamne sun suñu moom ko ci alquran ci xamle lu yeme yeme waye itam nak bi xam-xam bi melé nonu itam jikko ji jikko ji gën a gëna a gën a ndax sëñ Mor da fay sëñ bay day nettali ne am na koo xam ne dafa daf daf daf daan <coughs> ñu bari dañ koo fonkoon da daan ñëw ci kilifa yi ku amoon xel la. Mm-hmm. bu ñëwee di leen xanaa di li ñuy wax conseiller. Mm-hmm. di leen jox ay xel. Mm-hmm. waaw ne am bés mu ñëw ci sëñ Mor ne ko taal tey moom dama laa tey daal moom bëgg soxlawu ma dara. bëgguma nga jox ma dara it damaa ñëwoon rek ngir dolli si la am xel. ndeysaan waaw sëñ Mor ne ko ah kon de nay nay nay menn rek te bañ a doon ñaar waaw. man xel waaw mu ne ko doli mu menn rek de waaye bu ma ñaar mu ne ko ah sëñ bi loolu mooy lan bëgg a wax sëñ war ne ko dama ne nga doli ma menn xel bu ma dolli ñaari xel mu ne ko loolu laa bëgg nga firil ma ko sëñ ne ko man bu ma xelum tubaab bi di ma jéem a nax ma lay jéem a nax bañ bokk ñàkk ne ko bu ma xelum ajoor bi fee di ma yàq ma fee di la yàq bañ bokk yàqu ne ko xa ah, menn xel mi ma soxla mooy sëñ tubaab ne sëñ bi daal moom daa xalimaam la yoroon ak daa di sëpp ci daa ji di bind mhm. ci diggante yàlla ak yonent bi saa sala di ko tëgg ba mujj na lu waay am yut ko lu waay jur tudde ko kooka daaw mu laa soxlam xelam soxla góor ga foofu la takkee ay bagages am <laughs> waaw <laughs> <laughs> dégg lépp ci Serigne Mor maanaam Cheikh mu sotti rek la may tax doon dund moom da doon dund Cheikh Ibrahima ci léppam si jëfam ci waxam ci léppam moom da doon dund xam nga ab Baye Fall la mhm. ab Baye Fall la ndax euh, euh, dañu dund ak Baye Fall. ba ci mel ni xel mi. waaw waaw loolu dund. waaw loolu rek maanaam menn xel xam nga Cheikh Ibrahima wax na ci. waaw xel la. waaw menn ndax sëñ nee na. sëñ Tuubaa ko waxal tudd waaw ndax nee xelam dañu ko dul man. waaw waaw euh, rek menn xel la ndax sëñ Tuubaa rek la yëg. boo gisee dara yëngalu ko woon. Mm-hmm. mooy sëñ bi la teg ci kanamam. yi sëñ Mor wax léegi ñiy nuru dara moo xam nitu àddina yooyu yëpp fi ne boo gisee yooyu yëpp dara ñuru ko yëgul sax yëgu leen sax sëñ bi la yëg waaw maanaam moo tax ayib yooyu yenn yi ci sax moom doo ko gis moom du gis ayib kenn ku ñëw mu mu dékku la faj sa ajo waaye xoolut ayib bi kenn digganteem ak sëñ Tuubaa nag ak li mu koy liggéeyal dara du ci dox ba pare itam dund gi muy dund mag ñi ak bëgg gi mu leen bëgg ak fonk gi mu leen fonk yi muy cër boo xamante ni bii ndax sëñ Moussa Ka daana ko fréquenté mhm. loolu defe naa sëñ Mor mën na ci indi ay leeral mhm. sëñ Bay waxoon nañu fii nañu am na ci xasida googu sax ba mu ci mujj ga sëñ Moussa Ka woy na ci sëñ Mor Bay si dégg naa mu nettali ko ba tey mhm. mag ñi sëñ ma dem mii nga sëñ ma lemu Jóob Dagana daawuñu fa jóg tonte ne sëñ mu dem moo ko jàngal ndax sëñ Bay dégg naa mu nettali ne toog naa ñu toog ñoom ñuy waxtaan ba yegg ci ne sëñ Tuubaa de ñu masaan dajale fii balaa jotaay bàjjeex dinañu woon ne fa bu seen borom nett nañ ko sëñ Mor bu fekk kon loolu moo tax nag dund ko googu mu doon dund nag ak Baye Fall gi nekkoon ci moom nga xamante ne bii cërub Cheikh Fall bi da koo ñoroon lool ba lépp lu mu daan woote lu mu daan woo loolu ci Cheikh Ibra la ko daal jaaree parce que moo doon maanaam mu doon exemple maanaam mu daan teg ci kanamam jotaay bi lu mu bëri bëri mbooloo mu bëri ko ca rax di Baye Fall mu jox li yitte joo xamante ne bii da nga xamal sa bopp ne kii Cheikh Ibrahima ñor loolu moom ñu ko daan fréquenté ma ko wax mm-hmm. ñu bëree bëree bëree bëree bëri ñoo xam fekk nañ ko ba tey nga xamante ni ku ko nuyu di Baye Fall sax moom boo ko joxee loxo lay xame ne yow Baye Fall ah. kon day mel ne kon am na loo ko Cheikh Ibra am na lu mu daan jëflante Cheikh Ibra ci mbiri biir biir loo xam ne yëgul ci kii mm-hmm. waaye nag mbirum maanaam euh, baatim bi nekkoon ci moom loolu sax xam naa sëñ bëggoon nañ mu mosal dara ah. sëñ Mor mm-hmm. cër bi mu am ci sëñ Touba maam ci misaal tey bu doon ci jamono ji dama naan ci garaat yi garaat yi gën a foor ci jamono ji ñu wax ay ay ay colonel ay nangam nangam sëñ ma dafa romboon foofu ci yoon wi maam dana borom cër boo xamante ne bii maanaam ci biir cër bi da ko daan jëfandikoo da daan jëfandikoo sañ-sañ ndax dafa bokk ci gouvernement bi nëbbatuwul waaw nëbbatuwul lo te loolu yaakaar na nga am lu ñu ci mën a ah, ndax dégg naa sax ci xasi dëkk mm. defe naa sindi digi bokkul mm-hmm. mu xisat la soro si xasit ma sorri famille na sëñ Fall waaw moom laa lay wax waaw sekk waaw yooyu dafa mel ne xam xam la dafa xam li xew dafa xam li xew waaw loolu loolu loolu fim mu ne <laughs> xam nga bis bii ngeen di waajal muy xaasuraa andi ubbi bunt yu baree baree bare ndax ndax ndax ndax sëñ Moussa hmm. euh, bëri bëri na lu mbind sëñ Mor am na ci am na ci yoo xam ne sax arab la hmm. am na ci yoo xam ne sax arab am naa ko waaw am naa ci yoo xam ne man mbindum sëñ Moussa moom loxo la hmm. yoo xam ne mën sëñ Mbaye ma ko jox waaw yoo xam ne euh, ci arab la ko bind ci sëñ Mor am am na ci boo xam ne am na fu mu naan am naa fa kër Serigne Mamar Mbaye Cissé yetti at ak lëf ngir bëgg a toog ci suuf si hmm. Serigne mbay Mbaye Cissé may na mab lal hmm. may ma mbubb ak tubéy seral sama xol hmm. jazaa rabbul alamina xayraa kafaaka rabbul alamina dayra nga xam ne eh, di wax ne looloo taxoon ma bëgg a dëkki njaarim mooy jamono yi nga xam ne daa dafa dafa tawat jóge Touba ñëw njaarim di faju si te te te te mbindi sëñ tuwaay yi mu yoroon muy barkeel yi mu ko doon wan sëñ moom suñu war di ko yër ni ku mbind mi wax na ak man xam nga mbind ku ku ku ku mbind di waxal waaw sëñ Mor mooy bàttin bi lii sëñ Mamour di wax waaw ne ko mbind mi xamal na ma ne ma sa tawat ji dañ nga ci wéraat ba dund fukki at sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa fa di dem ci docteur Sidi Gissé maa ngi maa ngi siyaari Sidi Gissé Diop sa xarit bu baax boobu ci Allemagne di ko di ko bu baax ci taxawaayam bu rafet docteur Sidi Gissé moom bàyyam moo daan dox diggante sëñ Mor ak Sidi Gissé waaw ah, Baye seex Baye Cheikh Diop da euh, dafa dafa dafa dafa mujjoon mhm. euh, docteur di Gissé dane ko ku jógee ci sëñ Mor mhm. wala ca biir daara ja mhm. bu dikkee bu mu taxaw bu ñëwee na na agsi ci man ci saas waaw Baye Cheikh di ci liggéey liggéey boo xam ne booba ñu bari sax jàppoon nañ ne daa beral loxo sëñ moom waaye fekk na nag loola sax mooy li am mm-hmm. waaw mm-hmm. moom moomu mm-hmm. eh, bi bi nga xamante nii sëñ Moussa nekk na fa di dem ci docteur Sidi Guissé di faju ba wér ba bindaat di yeneen xasida lu mel lu mel ne xasida eh, googu mu tagg sëñ Fallou xasida ak sëñ Fallou googu ah, wayaat na fi yu bari dégg nga moo naan ci njëlbeen ci biir xasida ga ma nga naan mënatumaa wax ñàkk naa aw làmmiñ amatumay gët loolu doy na gémmiñ ahaasana mm-hmm. boroomu làmmiñ moo gën a bon maalaw bu yor aw sémmiñ mm-hmm. moo tax ma jóg di leen dagaan yéen gars yi bu ma gaaw a faatu pël naa maay mm-hmm. tool ma na saa yoo xam ne mënatumaa wax waaye mbaa may taalif mënatumaa bind lu weesu amul aw lef nga xam ne booba wér a digi metti na waaye xasida googu da koo lafoon Mm-hmm. ginnaaw gi wér na ba àggale xasida gi dundaat fukki at demaat Tuubaa ba fukki at yi ko sëñ Mor wax man fa tawar ji songaat ko mm-hmm. mu yónneewaat ndaw ci sëñ Mor sëñ Mor ne man la ma mbind mi waxoon jeex jeex na mm-hmm. ci la dellu ci borom kon kon kon day day firndeel loolu nga waxoon ci wetu wetu batin maanaam ku mbind di waxal di wax ak mbind waaw eh, sëñ da ko da da da ko yónnee Euh, cinq cent franc franc français mm. la ko joon jox mm. jox ko sëñ Mourtala Amar mm. mi ngi fi boo ko dégg laajee sëñ Mourtala Amar dana la ko nettali waaw sëñ laa Amar maa ngi koy siyaare bu baax sëñ Mourtala euh, Amar moo ko indi bi mu koy bi mu ko joxee sëñ Mor sëñ Mor da ne ko du ma lekk xaalisu Mbàkke Mbàkke kon waaw waaw waaye nag sëñ Mour waaye sëñ Mourtala dafa am garaat yu ñu boole ci gouvernement bi boo xam ne loolaay tax ma sañ waaye du ci wetu Mbàkke ja tax ma jël ko moom sañ naa ko koo jël waaw ndax ay grade yu mu boole daal ne ko waaye nag xaalis bi Mourtala ne wax sëñ Mourtala Amar ne ko xaalis bi nee na naa la waar mm-hmm. waaw ko xam nga fee dani mbind mi la wax sëñ Moussa fii sëñ Mourtala Amar dane ko xaalis bi nee na naa la waar franc ne ko lii lu mu doon mu ne ko cinq cent franc français mu ne ko buñ ko xoolee ci xaalis bi fii lu muy tolloon suñu laabar ma ne ko vingt cinq mille la fi boobu moom la mu ne ko juróomi junni la fii mu ne waaw mu ne ko lan la France mu ne ko téeméer la ca France waaye juróomi junni fii la mais mu foto su ne ko seetal lool rek ne ko moo ne gars yi ni ëppantee raw na lool ni ñu ëppantee raw na lool ne yi ni ñu ëppantee raw na lool ne ko gannaaw xaalis yee ëppantee doole noonu rawatina gars yi ne ko sëñ laa noonu la mel ci biir gars yi sëñ Tuubaa waaw moom sëñ Tuubaa ne ko kon nag na ngeen ko waggar loolu la ma xaalis bi doon wax ne naa la ko wax yow ma ne ci wetam na ngeen waggal sëñ bi. waaw dëggal jàngale waaw waaw. waaw waaw ko lii lan la lan la ca France mu ne ko téeméer mu ne ko fii nag mu ne ko juróomi junni. mu mu mu ne ko mu ne ko seetal rek gannaaw ay xaalis a mën a ëppante nii. te gars yi ni ñu rawantee ëpp na nii xaalis yi rawante. <laughs> waaw waaw waaw waaw ne ko sëñ Mourtala noonu la mel ci biir gars yi xam ne. Mm-hmm. moom sëñ Mor dafa day day jëmm joo xam ne mm-hmm. baatinam. dafa dafa tasaaroo waaye nag daf daan dafa dafa dafa dafa jaar ci barab yu metti mooy suñu borom da ko mayoon ak mën a muñ waaw ku mënoon a muñ la sëñ bay wax na ne daan nañ kafe ba noppi mu ub kafe gi di xaar luñ ko suukari ba tisbaar te duñ naan te du du ko laaj du ko àbb eh. hmm? waaw dañ daan nañ kuy xaar yàlla moom nga xam ne moom jaayoo jëndoo yii sëñ bay wax léegi hmm. yàlla rek ngay xaar hmm. kon da ngay xaar ba yàlla ñëw rek ci te bu ko laajoon ñu jox ko waaye day day day toog ba waxtu wu amee rek mm-hmm. ndax ak mën a muñam naka noonu itam mm-hmm. tawakkul dafa wakkirlu woon ci boroom mm-hmm. waaw euh, wakkirlu gi dem na ba nga xam ne euh, daara ji gis nga sëñ blaat xam naa sax bu ngeen ñëwee Ashura mm-hmm. ndax ndax ndax ndax ndax ndax mooy bis bi nga xam ne mm-hmm. njariñ jëpp dañuy ñëw di siyaar di ko siyaare si boobu sax si la ñuy tàggoo waaw waaw <laughs> bisu Ashura boobu ci la ñuy tàggooyee mm-hmm. xam naa da ngeen danañ danañ danañ ca mën a dugg bu baax a baax ngeen ngeen gis euh, liggéey bee fa Sëñ Bilaa di def waaw liggéey bee muy def ca daara ja nga xam ne mbaar mu yaatu la moo xam ne euh, mat na quatre cent quinze mètres moom la mbaar mi moom la yaatuwaay nga xam ne sëñ Mor dafa waxoon ne loolu lépp alxuraan la ko jox ci maanaam ci histoire ci taarix rek suñu borom da ko cee defal ndam loo xam ne ci wàttuk alxuraan ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne ci alxuraan dane kitaabu ka diini wax wa xilli wa munisi bii bihil heedi wa nafsi bihi sakka nee na alxuraan muy diineem mooy xaritam mooy wéttalam ne yàlla mi gindi ci alxuraan la ko gindee wa nafsi bi sàkka ci alxuraan nit la sun borom sellale bakana mu wax ne karamati wa mafkhari wa jahi kitaabu rabbi wa rasulullah sama karama sama tiitar sama daraja moy alxuraan ak yont bi waxaat ne bi khidmatil kitaabi wal hadith yasbutu la bi sahabi mawrusi liggéeyal alxuraan ak liggéeyal xam-xam mooy sama liggéey ci laay sax waaye kenn du ma doon ci wurus ak xaalis ah. kenn si zil kitaabu wal hadis wal adab hmm. laa jëm hu fidda wala jëm hu sahab kon ba ba ba sëñ bi sax dafa sartal ab murid hmm. kullu muridin bii yeluusu fal yu dim ci laa watan hmm. li xëyri zikrin xadru zib bu ne murit bu ne bu xëyee na jàng dara ci alxuraan du caagin da ngay mokkal alxuraan waaye fàttee sax bu xëyee jàng ko yéene ci jëfi ndigalu suñ tubaab bi ba murit nga jàng alxuraan ci waaw waaw waaw waaw kon kon kon kon bu ma daaneelee mooy moomu sëñ di liggéey nga xam ne alxuraan la koy liggéeyal eh, mbaar mi quatre cent quinze mètres la mm-hmm. vingt cinq la guddee eh, yaatoo dix sept sëñ Mamoun mii bi mu ñëwee maa ngi koy wax ne ko danañ ànd nga visité mbaar mbaar ah, def reportage bu solo bu soobee mbaar moomu nag mm. sëñ baa ngi koy liggéey mm. sëñ bi mu koy liggéey da koo engagé rek mm. yàlla dogal tawat ji ñëw noo ngi ñaan suñu borom jëlee ko fi. Ah, waaw ci barke sëñ Mor mi nga xam ne moom buñ defee tawasul ci darajaam. Mm-hmm. dañuy daal di rafet ñoom. moom kay moom loolu la ñuy tàggatoo jëlee fi waaw jëlee fi tawat. waaw ndax xam nañu jotaay tawat jotaay bi ñuy waxtaan man attan na lu ne. waaw attan na ko sëñ waaw waaw. kon nag liggéey boobu it sëñ Blaat mi ngi ci. Mm-hmm. bu ngeen ñëwee da ngeen ko gis. incha allah eh, kër sëñ Mor bâtiment dañ koo bëgg sëñ Blaat it ci pas-pasam da ko bëgg a liggéey bâtiment yoo xam ne dafa yelloo ak alxuraan yelloo ak gannaaw yeneen barab yi nii rek daara joo xam ne sa sëñ Aliou mi ngi mi ngi mi ngi sosu sëñ Tuubaa mi ngi ñëw njaarim ban année 1912 waaw 1913 mhm. la sëñ Tuubaa sañ ci kër gu mag waaw digal sëñ Balla Coro mhm. sëñ Balla Coro moo rëdd kër gi ci digalu sëñ Tuubaa jox ko Maam Jaas kër sëñ Mor gi mm. sëñ Balla Coro ko rëdd mu ko rëdd ci ndigalul Serigne Touba. jox ko maam Jaase sëñ Tuubaa digle ci alxuraan ndigal loolu ba tey jii ay kaang ña ngi fay mokkal alxuraan ña ngay jàng marax di jàng njël ba waxtu wi waaw gis nga daara ju yaatoo ju ci ci ci ci ju noonu ci Sénégal li gën a yéeme sax kay yoo xam ne fayu daara samp ci njaarim waaw ci kër sëñ Mor foofa lañ sol so waaw daara yooyu yëpp sëñ Malick Dieng waaw sëñ Moussa Guèye mboolem sëñ Moussa Guèye te ñooñu daara yeneen yi ci des ci daara yooyu lañ génne waaw moom daal xam naa ne foofee uh-huh. incha allah mbokk ñu fi waxtaanee lépp uh-huh. danañ dem ba si pencum sëriñ Mor Mbaye Cissé uh-huh. uh, dugg ca biir daara waaw maanaam mën a gën a waxtaane yaatu nga xamante liñ fi wax yëpp dañ siy teg bët incha allahu rabbi di lu yéeme wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool jotaay moom tey kawe na déggoo déggoo sëñ Modou Gisee ñu ngi koy ziar bu baax mm-hmm. nee na nee na nee na Mamour daf ñoo noosloo si si bëccëg bi waaw waxtaanu maam Cheikh Ram Fall doon def si rajo guddi yi ngeen bëgg a ñëw doggali ñu <laughs> wàllu <laughs> suñu borom bi di Serigne Mor si Cissé lépp rek te lépp lépp sëriñ Tuubaa lépp sëriñ Tuubaa ñoom ñoo ñëpp mën la maanaam ñu ngi ñu ngi sëriñ Tuubaa ah, loolu mooy mooy sëriñ Tuubaa moom mooy li ko ci guddi loolu rek mooy la ko seexlu jum basar waxoon rek ne ko ne ko bi madxika yaa ustaasu mm. zalat maxaaw yi fii wa sala xanaa yi wastafaadat mahaarif yi fa yow mii sururun suma amnun wa bahjatun wa layli bi kat daarey ni laylul xawaarifi waaw loolu la ko wax maanaam sëñ Tuubaa bi mooy moo moo bëccëgu mbégte la guddi njëkk la nuy fanaane loolu mooy mooy nekk nekkoo nag ah, wala ma badal yi anna madhaka rifati hmm. tiladi tiladi mooy loo doon ne ko ne ko waxtaane la ak tagg la ah. moom moo moom lan fekk baax ah. loolu loolu lan doon te ba te ba àjjana rek waaw te it mooy sun mooy sun alal ju bees mm. lin fàggu mooy waxtaane la mm-hmm. lin doon mooy waxtaane la ak dund la ndax waaw ndax sëñ moom mm-hmm. moom dañ naan moom moom man ngaa wax ne daal sëñ bi daal moom liñ daan sëñ bi mooy sëñ bi daal sëñ bi sëñ Tuubaa moom moom mooy mooy mooy adduna mooy alaxira la waaw nañ nañ ci fas lépp rek ah, waa jaarim yëpp sëñ Maxtaar mu bàyyi xalifa Fall waaw ndeysaan waaw bàyyi xalifa bëggoon si Nour Mbaye Cissé waaw lool ndeysaan waaw baax baax tey ziyaaraat bu baax a baax sëñ Mouhamed Gueye teraanga ndeysaan waaw teraanga ndeysaan waaw waaye di beral nuyoo ak ziyaar nag euh, Baye Omar Seck mm-hmm. ca Parcelles HLM Paris mm-hmm. ñu koy suñu Baye Omar Seck ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax moom ak mm-hmm. euh, Baye Sall Seck ak waa kër gi yëpp fàttewuñu leen mu ngi leen di ziyaar bu baax a baax wax dëgg yàlla sëñ Mamour waaw ah. xam naa kàddu yooyu tubarkalla di ziyaar bu baax a baax mboolem kilifa yëpp waaw fekkee moom tey sant nañ baax di ziar mbokk yi nekk njaarim yëpp nag ak kilifa yi Eh, doole ñaanal baax sëñ Abdou Lahad Cissé mu yàgg fi loolu ak mboolem njaboot sëñ Mor Mbaye Cissé gépp di ziar baax mboolem nag Baye Fall yi nga xam ne jaar nañ ci loxol sëñ Mor Mbaye Cissé di ziar baax sëñ Fallou moom sëñ am di xadi waaye sëñ sëñ sëñ sëñ Maam Lamp moom waaw ziar sëñ Cheikh Fatou Fall ak mboolem njaboot gi yëpp waaye di ziar bu baax a baax euh, sunu Baye Alaaji Mour Thiane mu nekkal sëñ Fallou fii ci Dakar jiite daayira sëñ Fallou ñu koy ziar baax di ziar mboolem njabootam Papis Thiane ak ñoom nday faatu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax dèjà seen wajur wu jigéen woowu tam ñoom itam di ay murit saadix ndeysaan di ñaan suñu borom mu doon leen fa yàggal bu baax di siyaar suñu Baye Talla Gueye mhm. moom xam nga fan yëpp ñu ngi woon ci màggal bi Cheikh Abdou Khadir di ñaan suñu borom mu doon ko fa bu baax sax moom mi ngi topp jotaay bi di siyaar mhm. bu baax nag mhm. mboolem waa Touba yëpp même ba ci kër Baye Cheikh Ndaw ñëpp ndeysaan ñu ngi suivi jotaay bi njaarim jëpp rek njaarim jëpp ñu topp jotaay bu baax a baax di siyaar suñu wayjur yi ak suñu kilifa yi nga xamante ne ñu ngi foofu di ñaan suñu borom mu dool leen a yàggal bu baax a baax a baax di ziar baax sa jàllin cun nag ci ah, taxawaayam di ziar sëñ Ibrahima moom itam amee nañ ko jàpp moom def na jotaay bi da cee def yitte si terrain sëñ Ibrahima waaw daanaka du toog ñaari waaw woote waaw mu ne ko waaw ñu ngi waajal baax liggéey na ci liggéey bi te Cheikh Ibrahima neewoon mu waaw xam ànd bokk mucc ba mën a àggale liggéey bi jërëjëf xam a di ko ziar bu baax a baax mu Serigne Cheikh Ndigal ak mboolem waa kër Cheikh di kenn ci daara ji itam waaw Cheikh waaw di kenn ci daara ji wax di ko la mu ngi ko ndax na kon kon kon iya, kon kon kon sama rakyat, Baye Serigne Giraan mi nga mau sama njaatige hmm. bi ma ñëwee bu baax moom soxna Sali Touré mi nga xam ne mooy sama yaay fii ci Ndakaaru ah, moom moom euh, bokk di di bokk ci waa sëñ bi hmm. euh, siyaare bu baax sëñ Daam Jóob itam ñoom moom moom ñoom euh, daal hmm. siyaare sëñ Xaadim Gumba la hmm. ci état yi nga xam ne ku ku ku am taxawaay la ci liggéey bii ma doon wax ñoo ngi koy sant bu baax di ko siyaare boobu ba léegi mi ngi may woo dippi Sali ca Mbuur di ma wax naa ma émission bi maa ngi koy topp ba bi may nekk ci oto bi ñëw mhm. noo koy siyaare bu baax a baax siyaare njabootu sëñ mbay gi waaw maa ngi siyaare njabootu sëñ moo sëñ mbay gi mañ ma wulóoree ni sax waaw na ku mu tuddee Cheikh Ibrahima. waaw waaw maa ngi siyaare kii magam Cheikh lañ ko tuddee. moom it maa ngi koy siyaare maa ngi siyaare mañ ma wu nooree nii. muy eh, daayira sëñ Bay bi nga xam ne ay soppeem lañ. Ah, te itam ñuy topp jotaay bi di jël di ko dugal ci groupe bi. maa ngi leen di siyaare bu a baax a baax. bàyyi góor mag Diop nu ngi koy ziar bu baax a bokk kër sëñ Cheikh Ngunda. waaw <coughs> ca Gorom. Mm. nee nee na ma nee na ma nee na ma sëñ Mor Mbaye Cissé. waaw moo daf ko daf ko nuyu mu ko yow mi Baye Fall nga. te nee na jamono jooju. Mm. sëñ Abdou Khadim moo doonoon sëriñ tey jii gisoo mu ngi mi ngi kër Cheikh Ibra waaw gis gis daa ah, sori bu baax a baax ah, waaw waaw ndeysaan ndeysaan tubaarkalla ndeysaan ndeysaan ah, naka noonu sëñ sëñ sëñ sëñ xaadim ko royaa nag xam naa bu ma ko fàttee mm. nee na sax sëñ Mamoun naa ko utal numéro sëñ Mamoun ndax moom da koo sopp lool mu jaxasoo moom nee na jës bul murit daf koy topp maanaam bi vingt bi vingt et une heures di jot daal nee na ma man maa ngi sama sama télé ma ko soppi lamp lamp rek waaw waaw ak mbokk yi ñu doon jotaay bi sëñ Maguette Madieng si si wàllu caméra bi àndoon ak euh, Yankoba Dabo di ziar bu baax a baax Serigne Cheikh Cissé mi nga xamante ne moo yor fas yi di ko ziar bu baax ziar bu baax kon daam cuun ak euh, saasi si wàllu euh, réalisation bi santat nañ bu baax a baax te xam naa ne incha allah di ngeen incha allah danañ ay jotaay bu soobee yàlla waaw danañ amaat ay jotaay yoo xam ne dañuy tàmbalee ci sëñ bi rek waaw ay ca boog ñu ñaan ñaanu sëñ Mor kon yàlla ñu mucc yàlla na nu am yàlla nu dimbale yàlla na nu jéggal yàlla na nu dimbale jéggal jagal nu jagalal yàlla nañ ñu may lu dul jeex te njëriñoo amiin yaa rabbal yàlla nañ am ci kër yi àjjana yi te bañ a gaaw a amiin yaa rabbal dañ musal ñu ci ndog ak ndab te may lu jàmm amiin na ko njaboot yi bokk yi ku nu ko yéene amiin ak sëñ Tuubaa ak sëñ